man nga xam ne ndeysaan am na defet bu ma jógee jël bu métti lañ ma jógee daane jël boobu naqari na ma waaye manduwaar ndax leer na la ne combat bi ngaa jël ndax xam nga ko mandu na ko ne ndeysaan fii laay ñetteele ma caaca na ko ne fii laay bennale bëri dóor moo ma tax a jóg train naa ma train mun naa ko woowu ma caaca ma caa ngi noonu waaye ndeysaan Gambia xoolal ma lii man ndeysaan Gambia lii la réew mi mu nekk li nga xam ne yàkkamti woon nañ ko mbëri ndeysaan am doole am kàttan am man-man am gàllaaj am àndandoor am ay kilifa ànd ak mag ñi ànd ak xale yi ànd ndaw yi xoolal leen ma fans club bi xoolal leen ma lii ndeysaan di xew fii si bundung ndeysaan si primary school bi kan ko tëgg kii nga xam ne ndeysaan mooy Kapsin promotion jamono buñ toll nii nag combat bi nga xam ne nii moo taxaw arbitre bi sufle na diggante ak Kobral Kobral moo ñu jox gannaaw amee ngemb lu ñuul li Safando moo amee bi ama ngeen bulu bula li waaye alaaji combat bi niru na ma ne combat bi dut àgg la niru na ma combat boo xam ne soo caaxaanee alaaji jëlli du am waaye su ko defee rek war na ñoo bëri su jël la amul sax nit ñi kontaan ndeysaan Cobra am na li mooy ut Cobra na li mooy ut mbokk yi mbokk yi ndeysaan dafa mel ni dafa mel ni ndeysaan jël la am na dafa mel ni ndeysaan Cobral daaneel na ki nga xam ne mooy Safando parce que refli bi ndeysaan wax na ne pep waaye ndeysaan fa Safando yëgul ne ndeysaan refli bi am na lim def am na lim wax am na lim communiqué Jibril Baaji ak oncle Ndiouk waaye dafa mel ni ki nga xam ne mooy Jibril. moom mooy nekk ki nga xam ne moo ne si géew bi war a refli ñoom ñaar Amadou ak ki nga xam ne mooy Mama Lamine waaye muy ñaareeli combat combat bi nga xam ne yaakaar naa ne alaaji léegi tee mu jeex yaakaar naa ne ñoom ñaar ñemewante nañ parce que ko xool Mama Lamine nga xam ne am na lu waaye mu ngi xewee fii si Bundung kana ko tëgg Kapsin promotion ñu am fi alaaji cooy alaaji caam Matar seen Linguère nekkal leen si fii nga xam ne mooy wàllu commune Tieto bi di leen wax lépp lu xew si biir géew bi alaaji caam ñam ñaar tee nañ sa kaw waa nag man war tuus moom tam de waa topp combat bi rek ndax ñaari mbir kenn du ko boole diggante Mama Lamine ak Amadou Sarr ñam ñaar ñu ngi jàppante si kaw Matar ñaari xale yi maama Mamadou Lamine Mama Lamine mu ngi un ngambu Mama Lamine ben loxo bi am na ngambu Amadou Sana loxom bi amagul ngambu mu nga téye sa mu ngi ah Mama Lamine ak Amadou sar Mama Lamine ñaar loxom yeb am na ngambu Matar yaakar na ne combat bi legui tay mu jeex. gay yi wuñ waxtu bi dem na dafa am waxtu Beri dafa am time nit ñu fay seen xaalis ñoo dugg ñetti ref li ngay d'accord ñu ngi discuss lan mo wara mbokki maam Lamine daana na ki nga xam ne ndeysaan mooy Amadou Sarr parce que yaakaar naa ne si avertissement wala li nga xam ne mooy woon in dog iñ ko dog moo waral géej gi ndeysaan jël boobu noonu mu doxee noonu alaaji diggante Youssou Ndour mooy ku xees ki amee malaan mi nga xam ne fanti la ndeysaan kii di Pa Modou moo sol ngemb lu ñuul li won ñu gannaaw léegi nag ñoom ñaar kenn ku nekk def nga li nga man pexe rek fi des ndeysaan ah ñoom ñaar ñu ngi teetu bëre bi ñu ngi teeto Youssou nduur am na ngemb Youssou Ndour am na ngemb ndeysaan Youssou nduur am na ngemb Youssou Ndour Youssou Ndour gëm sa réew ca kóolóoli Pa Modou Thiam Pa Modou Thiam Kololi Mbolo kon ñoom ñaar ñëpp dafa mel ni lañ hop Pa Modou omam la yai, na waaye demut da ila Pa Modou am na loo mënoon a def rek da nga doon jekkali waaye ndeysaan waaye li la fa andi moo fi andi Youssou Ndour moo tax yëf yi du yomb mbir yomb gis dafa ñaari ñu ndeysaan fii mu ngi fees tepp lii moo ñoo wan ne nit ñu bëgg nañ làmb waa bundu génn nañ Latrikunda li ko wër ba Kunkujang ba Kostoroot ba Banjul ñëpp ndeysaan teew si nañ si làmb ji atte si nañ làmb ji waaye léegi teel làmb ji ñu xam xam ne kii mooy Pa Modou moom lañ joxoon avertissement te combat bi su jeexee noonu Youssou Ndour la ñuy jox ndam li ndeysaan combat bi a ngi noonu Youssou Ndour a ngi noonu jël na combat bi ndeysaan Youssou Ndour déet ndeysaan daaneel na ki nga xam moy Pa Modou cham fële sa kolooli mbooloo leer na seet amul weerante. te di leen fàttali ñu ngi taxaw ki nga xam moy Black African tour bi sa mo njëkk a ha ah? yes amanda mbori dañu amanda fédération bi dañu faade wala mbori dañu ragalana ah? dañ de wax mbiri écrit ci bir radio yi advertisement dem day dégg ñu tuddi écrit wa duñu mo dégg am forces xamaa lu xew forces non day day fo de fooguloo dañ leen gëj a rek. non du ma dee man du ma dee man bas na du ma dee dégg parce que naa at mi lu ñu liggéey foog naa doomi aadama moo bëgg suñu bopp. amaguloo combat de. ama combat. bi ma joxoon tas teel a kontaan si jamono ma toll laa bëgg tas. dama bëgg nga xool kii ne tas yow lay xaar. man tas lay xaar. déedéet xoolal caméra bi. tas yow lay xaar Guinée Mone yow lay xaar Kunta Kinte yow lay xaar poids lu rek poids léger man dama xeeb poids lourd laa soxla ñoom tas ñoom Guinée Mori ñoom Kunta Kinde laa soxla man amul mbër ma ragal fii mbër yi dañ dee man gisuma bëre ñu ko bëre fi bëre bu ma bu ma nee. sa laas bëre bi dañ tojol sa gémmiñ bi maa tene la léegi. bu baax man suñ ma suñ suñ bëggee ñu joxaat ma revanche man ak Cardouz. ñebe ji ah? bi waaw waaye nag na te yàgg te nga bëre. lu ma liggéey moo ëppal lu ma lu ma liggéey ba lay traîner ma damaa si feebar ñoo jël combat ma bëre. ndeysaan diggante Moussa ak Moussa jox ñu gannaaw Habib Dakar ak ñun Moussa amee green li dafa am lu bulo am lu werta am lu xonq ngembalu dafa melni wax la wala legos la waye dal lu mu taxaw mo jox gannaaw jamono buñ tollu ni moy ñaari xale yo xamni dafa melni Musa Moussa mu ngi genn saako yi Moussa genn na saako yi arbitre na bi jox na Moussa avertissement won na ko na ko su bi amee fii Moussa daay ñàkk. kan moo war a daanee léegi te mu leer ku ëpp doole daanu ki nga xam ne moo sonn daanu ku tàng xol daanu ku mëntu bëre daanu technique dina dem waaye ñoo am doole kan mooy daanu xamaguñ ko diggante Moussa ak Abibu Abibu am na benn avertissement ñu tuddee ko woonin ki nga xam ne mooy Moussa am na ñaar waaye naka la combat bi war a demee léegi tey mu leer alaaji combat bi ndeysaan ki nga xam ne mooy Moussa dawaat na génn si biir ji saako yi. ndeysaan Moussa am na ñetti wooniin ki nga xam ne mooy Habib am benn waaye dafa mel ni combat bi Habib jël na ko waxoon nañ leen ne wooniin bi dafa am solo soo bëri nekkee si biir géew bi bëri wula di taw dina la jox wooniin te wooniin boobu mën nga soo doxee ñàkk sa combat noonu la demee. Sidi kii taxaw si digg géew bi tey di bàkku di yëngu mu daanoon Gambie si juróomi ne alaaj jërëjëf Matar kon dafa mel ni dafa siisu woon ci kaw forcé ko jël ko ba déqi ko ba mu jeex ndax ku gis Gambia xam ne neexut a dëqi waaye bi ko Sidi jële daf ko dëqi ba mu jeex tàkk ba mu tàqale koog suuf foogoon nañ ne sax gannaaw yi Gambia gi dina dama waaye laa ko dimbale ponk la mbërë ngi nii moo xam ne ku ko moytuwul ren foog naa ne lépp luñ fi teg ci Gambia dina ko jël moom mi nga xam ne mooy Sidi Cissé. arbitre bi sifflé na diggante Youssou Ndour ak Habib Youssou Ndour jox ñu gannaaw Youssou Ndour takk na sol na ko solom koow Youssou Ndour am na ngembu dox gannaaw Youssou Ndour nag moo ëpp abib doole mom abib mu ngi dem ci saako yi Youssou Ndour nga ko topp Youssou ak abib Youssou Ndour doon na jël tànk bi bàyyiwaat Youssou Ndour am na ngambu abib am na ngembu ndangañ Youssou muy bare boo xam ne bii ñam ñaar mun nañu wax na ay lañ because lamb moo leen boole ah yaa Habib Habib Habib Habib war na ndomba Youssou Ndour lan mooy xaw fii lan mooy xaw fii Habib war na ndomba Youssou Ndour lan moo faa xaw lan moo faa xaw Habib war na ndomba Youssou Ndour Matar Matar ah xeeb daan mu rey sab doom diggante Habib ay Youssou Ndour baal ak sandu